yéen a ngi teewlu info 221. info 221. Ah, jaa ngeen jëf mbokk yi safoo di déglu info di leen di nuyu xibaaru tey rek dañu wax nag ab mbirum yi ba nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ca Pikine ne ki tey jii nga xamante ne benn waa moo doon mbubboo turu commandant daal di am ay gants daal ñu nekk di sàcc ab téléphone jaambur yi di ko jaayaat ñooñu nag ñu doon ñoo xamante ne ciblé woon nañ leen ndaxte bari woon na ay plainte yoo xamante ne jotoon nañ ko yóbbu ca commissariat bu Pikine waaye nag ba négg yoon daal di teg loxo ña nga xam ne rek jotoon nañ leen sàcc seen téléphone yi ah, doon dund ay jafe-jafe ndax dañ doon nax rek fas yéen xam sa code téléphone buñ ko defee rek mën a sàcc lu nu mel ñoom ñoo ñu nag tolloon ci ñaar fukki nit yoo xamante ne daal ñoom ñëpp seen téléphone dañ ko sàccoon gannaaw ba nga xamante ne nag ñii di waa gendarmerie def nañ seen liggéey jot nañu récupérer téléphone yooyu yëpp nag ba yóbbuwaat yooyu jox ko seeni ah, borom laasi di ñu xamal nekk ne escroquerie yooyu nag jot nañ leen a jàpp ak ki ñoom ñëpp jàpp nañ leen ba yóbbu leen ca parquet ba ñu ngi leen di toppee ci wàllum association de malfaiteurs usurpation de fonction ak recel administratif nga xam rappeur bii di Nit Doff moom nag mi nga xamante ne bañ jël texee loxo ca mars ba tey jii rek nag euh, jotaguñ ko bàyyi ay avocat wu mag ñu ngi doon sàkku nag waa juge bi ñu fas yéene ko mayat lu jëm ci liberté provisoire waaye loole nag mujjuñ ko ko nangul ba tax na rek jamono ji moom mi nga xamante ne nag nit dof ñu ngi ko fas yéene daal di bàyyi euh, ba xam rek ni nga xamante ne ñu ngi ko laajal yoon dina ko bàyyi mu daal di euh, dem rek fi nga xamante ne rek maanaam sàkku bi nga xamante ne ay avocat koy sàkk lu jëm rek ci liberté provisoire ñu daal ko am moom mi la nag ñu ngi koy toppee euh, ba tey rek ci lu jëm ci outrage à magistrat maanaam rek yëkkati ay ay magistrat waaye tamit ci réew mi ak ñàkk a dégg dogal gi nga xamante ne nag suñu réew daal na ko joxe ci wàllum yoon waaye tamit lu jëm ci menace de mort ba nga xamante ni mi ngi ko doon waaja def nag ñi nga xam ne ñoo féete ci yoon bi gannaaw ba nga xamante ne teg nañ ko ci loxo bëccëg ba mu doon amal ab live si investigation criminelle daal di fekki nag ba daal di ko teg